jërëjëf yi la ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi fay sëñ sëñ Fallou. ñu gis ne keroog dee na ñëw dimanche def maas. cent pour cent ñëpp mm-hmm. ànd ñëw mm-hmm. jàppale ki nga xam ne mooy Coly Faye mm-hmm. la def li gën Arafat daan ko jël bu rëy tey euh, mu doon loo xam am na xas woo xam si ni nekk na seen ginnaaw xas yi mooy lenn mooy euh, tarkindaay wax rek lañ mën signature contrat rek lañ mën waaye bu ñu demee ci làmb ji fulla ak fayda duñ ko def euh, ba lan ngay lancé ban appel ngay lancé ak ban yóbbante ngay yóbbante ñi nga xam ne ñoo lay seetaan parce que waaw avant tout avant tout di féliciter Ada Fass di encourager Coly Faye mais nag di ko wax ne moom Ada Fass moom na xam ne moom bëreegut ak ay moroomam moom ñun ñooy ay moroomam te bu yoon jeexul bu ne waaxasul du jeex tànk suuf jaan suuf yàgg-yàgg dinañ dajee te moom malfaiteur boobu noonu muy wax dajee lagul ak moom moom loolu da koy woote mais nekkul si moom da nga gis ne da nga gis ne ki mu ak ba ban moo gën a saf. bilaay laaj naa la ko. garabu kaane moom boo demee ne ko garabu kaane ak doom ba ban moo gën a saf. Ada Fass nee ko mu wàcc. ñooy si ginnaaw sa bët dafa dafa nekk ci Ada Fass wala lan la. non non Ada Fass moom même génération la ñii duñu ay moroomam. dëgg la nag. lambu kenn ku si ne maanaam reenu ñàmbi la quoi mais garab si kaw lay fekkante amaana ñoo génnandoo yàlla def moom mu avancé sax ñu xaw a am tuuti lu ñu kare. combat jeexee ngay door a wax du moroomam. non du loolu sax Arafas avant loolu man ak moom moom xam na mais nag yàlla baax na quoi mais na moom na wàcc. mais Arafas mbaru dëkk la de. waaw yile mbaru la la yow. mbaru dëkk la. nga nga bëgg a laaj xale boo xam dafa ës. dugg lam saar nga mais nag mais nag ah, nga laaj Arafas day métti. Arafas maa ko gën a ës. maa gën a dof maa ko gën a yàqu maa gën a bare te bu doon tey tey tey tey tey xam nga jotagul mais bu doon tey tey tey bu ñu wàccee si stade bu ñu xam ne moom du mbëru dëkk mais yii la est-ce que Ada Fass teg na la bëgg. ki lay lekk mooy li ma la wax rek garab si kaw lay fekkante Ada man pare wu ma pour moom de mais man dama pare pour ku fi dugg laal sama mag man man ma ñëw jël ma ñëw ma ñëw yow récupérer yow li nga fi jël damay dem récupérer ko mais man bëréew ma sax pour Ada Fass barke Mamadou Moustapha Fall jëli bee la métti non du jëli bi sax jëli bi métti ma xam la moo ma métti li li li li waa taawun ñëw xam lu wax def mobilisation ñëw am si suñu kaw ndam. na ngeen def mobilisation ñor. na ngeen def mobilisation si te ñëw na ñeneen ak ñeneen. mais dama ne la niñ ko dundee laa la wax. ñoom ñoom nuñ ko dundee. ak ñun nuñ ko dundee fii nii daa bokkul daa dajewul ak ku mel ni moom bu daje woon man lay comprendre bu daje woon man dina xam ne man duma ma qualifié qualifié sama papa mais maa ko gën a dof su ma dee woon ali kii nu mu tëdd Ada Fass si lay comprendre te yàlla baax na nañ def Ada Fass maa ko gën a dof maa ko dàq bëre maa ko gën a dof